mbokk internet yi safoo setaan AGT news daleen ak jàmm ci xibaar comme à son habitude maître El Hadj Diouf dikkati na dalati bu baax a baax ci kaw kii di Ousmane Sonko moom nag nee na nga xam ne moom moo di suite boote di yàkkataan kii di Adji Sarr ñëpp tëdd couvre fa am dem di fekk ji ki nga xam ne moo di Adji Sarr moom nag nee na procès bi bu fekkente ne am na dinañ gis ne kenn mësu koo teg bët loolee nag nekk ay accusation yoo xam ne maître El Hadj Diouf mi koy jël di ko teg ci ndoddal Ousmane Sonko moom nag mu ne nga xam ne moom la Ousmane Sonko di wër di wax nee na ab njëkkante la nee na Ousmane Sonko daa bëgg a dox ci xelum Sénégal yi moo waral muy wax waxam jiit waaye lépp dina leer waaye nag moom Ousmane Sonko dina jàkkaarloo ak Adji Sarr mu mel ni moom maître la nga xam ne Françoise la nga xam ne Ousmane Sonko mi ngi koy wax saa nekk muy que ne ñoom ab complot la tëral bëgg rek kii di Ousmane Sonko janoo ak Adji Sarr pour defal ko benn procès moral mu waral nag ca direct ba ñi xam ne ñoo di jeunes yi ko doon suivre ñoom ñi ngi doon dal bu baax a baax commentaire yu métti métti nga xam ne El sax mi ngi doon wax naan xam naa ne yéen a ngi may saaga jamono juñ toll nii waaye nag man duma leen tontu waaye maître El moom nag xam na xel sax ne sénégalais yi déglootuñu ko sénégalais yi amuñ benn confiance ci moom ndax doxalin bi nga xam ne gis nañ ko mu am ko depuis le début ba tey jii loolu yëpp nag nekk ay mbir yoo xam ne faw sénégalais yi di ci bàyyi xel bu baax a baax ndax dañoo nekk ci am réew moo xam ne suñu ab état dafa nekk ci ay loxoy ñoo xam ne ñoom amuñu benn sens de la responsabilité xamuñ ne ay institution la ñuy incarné xamuñ itam ne institution dénkaane dañ koo war a téye ak seen i fukki yoxoo ba pare itam di ci def loo xam ne day respecté sénégalais bu ci nekk waaye nag li nga xam ne la ñuy doxalee jamono ji ñu yu baax la Sénégal tànk yi mu jël nekk na tànk yu doy waar président Macky Sall la nekkee ci réew mi moo di jël ay nitam ñoom ñuy def seen ay njuuj njaaj yoo xam ne teguñu ko fenn di tuumaalaate di tegaate ab coono goo xam ne kenn xamul lu mu doon Pape Alé Niang mi ngi nii ñi ngi ko yàqal ab liggéeyam xañ maître Ciré Clédor Ly waxee nag di wane encore une fois que dans un état faible ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk nekkuñu benn yoon ñoo xam ñoo xam ne jaay doole moom moo leen neex ngir wan Sénégalais yi que ne fii ñoo fi nekk ñoo ko moom ku ñu neexul doo fi jëriñu loolee nag nekk na loo xam ne c'est très regrettable pour un état comme le Sénégal waaye lépp da xam ne cuunete ki nga xam ne moom lañ dénk réew mi rek moom moo ko waral lu Ousmane Sonko jàngat ci fait et geste yi nga xam ne nguurub Sénégal ñi ngi koy amal saa su nekk ndax nak ñoom nekk nañ ñoo xam ne amuñu benn sens de la responsabilité waral nag kii di Ousmane Sonko saa su nekk mu ciy addu di wax ne daal li nga xam ne moo ñeel réewum Sénégal foog ñu jug ci jël si suñu ay responsabilité bu ko deful dina nekk loo xam ne dinañu dugal ci ab guuta maître El Hadj Diouf nag xam nañ ko moom leen naa ko neex mooy ñëw di def ab cinéma am ndax lu ne wax na ko fa ay aayoo nen ne ay raay mbelle lu nekk maître El Hadj daal dina ciy dugg mbir yu ñàkk fayda yoo xam ne ñëpp xam nañ ne taxul ñuy wax ab avocat taxul ñuy wax ab leader politique maître El Hadj nekk fa naan ay nous disons non di waay ba nga xam ne moom moo di woyub africain ba nous disons non Ngoné Latyr loolee nga xam ne dañ ko war a wayal ay jàmbaar dañ ko war a way pour l'honneur et le respect waruñu koo def benn yoon loo xam ne ab taasu lay doon surtout mu jugee ci koo xam ne amul benn éthique amul benn déontologie amul benn fullaak fayda ca la nga xam ne moom lay liggéey maître Ciré Clédor Ly ab avocat la waaye Sénégal ñëpp ko respecté Bamba Cissé wax yi noppi ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi fi waaye moom maître El Hadj Diouf nekk avocat boo xam ne cinéma dong lañ lay doyee nit ñi yoo xam ne moom war na cee jug ndax nekkatul ab yoo xam kon moom war naa doxal doxalinu kilifa li nga xam ne nag moo am ci réew mi mooy que ne procès am mooy que Ousmane Sonko fakk Sénégalais yi teg moom nekk na ba pare la nga xam ne rek moom mooy dafa am a ñëw di ko jéem a gaar wala di jéem a yàq liggéey bi nga xam ne daal dina koy sumb ba noppi lu ci mënti am mooy que sénégalais sont sont là et ils vont essayer d'aider Ousmane Sonko à ce que mu mën a relever défi bi nga xam ne moom moom la am mooy dal di redresser le Sénégal jël nguur gi ci loxoy ñi nga xam ne ce sont des bandits financiers leen dog moo leen yitteel mooy naka la ñuy def ngir remplir seen ay poches ak seen ay comptes fexe ba ñoom seen bamb se sénégalais yi continuer di dund ay jafe-jafe ñu gis ne Macky Sall mi ngi jéem a xool ay stratégie yu mu teg ngir daal di génnee sénégalais yi si yooyu la jafe nekk mbir moo xam ne depuis 2012 ba tey waroon na koo jéem waaye talu ko woon lijjantiwu ko woon lu nekk di def ay traque de biens mal acquis pour éliminer des adversaires politiques nekk itam ci mbir yoo xam ne saa su nekk mi ngi xool naka lay def ba ki ko war a remplacer moom mu trouvé kan la fi ñu toll nii mu daal di lay éliminer loolu nag amul njëriñ amul sens moo waral nag Sénégalais yi ils sont à faire quitter Macky Sall du pouvoir ndax bu ñu ko deful rek dina nekk benn pertement boo xam ne du ñu xam fu ñu koy waxi jee te du ñu xam itam comment faire pour rattraper ko loole nag moo waral ñun ndaw ñi ñoo war a tàmbali ci mbir mi am fulla ak fayda ci suñu am réew bañ kenn ku ñu ko yàqal bañ itam koo xam ne daf commencé ak suñu ab population waaye itam ñu am fulla ci li nga xam ni ñun ñëpp war nañ cee préparé wu muy atum 2024 ñaan yàlla fekkee kook jàmm jël suñu ay carte électeur éliminer président Macky Sall ndax ñëpp xam nañ ne il va forcer pour faire partie des candidats waaye xam na xel ne 10 pour cent sax du ko am ci sénégalais yi ndax ñëpp ko ba ñëpp a doyal ci moom te nguuram ñëpp ne neexut kon nag président Macky Sall na am ngor fullaak faydaak jom bàyyi suñu am réew dem yoonam te mu bàyyi li nga xam ne moom lay def fi ñu toll nii muy avoir des prisonniers politiques ça n'a aucun sens Ousmane Sonko quelle que soit la situation il fera partie des candidats à l'élection présidentielle de 2024 te jongante bi nag bu fekkente ne moom bëgg na daanu jël bu doy na ñëw bokk ci ndax bu boobaa Ousmane ko dina ko wan ni Sénégal gii man maay borom te amul lenn loo xam ne yow am nga ko tey ci ndaw ñi ndax nag sénégalais yi ba ci sax moom Macky Sall ñi nga xam ne ñoom lay àndal ñi nga xam ne ñoo nekk ci partem ak coalition am na si ñoo xam ne gëmuñu ko soppuñu ko faalewuñu ko leen naa leen fa taxatoo ko ba tey mooy ñoom dañuy lekk la nga xam ne moom la Macky di lekk nekk fa di ut la xam ne moo di ab prestige ak privilège waaye bu fekkente ne ci ngëm kese moom moo leen tax a jóg amul benn ngëm-ngëm boo xam ne am nañ ko ci la président Macky Sall ñenn ci ñoom sax ñoom ñooy fuuteel

Macky Sall loolu la xam moo tax defu ko présidente bu assemblée nationale Macky Sall loolu la xam moo taxoon mu teeloon éliminé kii di Amadou Ba ba tey jii mu daal di koy indiwaat Macky Sall loolu la xam moo waral mu jëlee fi kii di ali Ngouille Ndiaye loolu la xam moo waral képp kuy leader rek mu daal di lay écarter jël nag ñoo xam ne ce sont des médiocres comme ki ngeen gis nii ci photo yi mu di Maître El jiital leen ci yu bëree bëri moom sax nit ñi gëjoon nañ koo dégg gëjoon nañ koo gis te dara waralu ko woon lu dul moom Maître El Hadji Diouf ñu ci bëri ñi ngi doon wax naan dafa am benn yaakaar bu tas boo xam ne président Macky Sall da ko koo teg ndax mooma yaakaaroon ne ne président Macky Sall dina ko yëkkati kaweel ko jox ko ay poste wala mu jox ko loo xam ne moom dina tax coono gi mu daj ci ak Adji daal di ciy fayeeku waaye nag li ci am mooy moom Maître El Hadji déception la ci jëlee instant bi nag ñëpp xam nañ ne moom dafay forcer mbir yi moo waral muy jéem a yàq deru Ousmane Sonko waaye lu ci mënti am sénégalais ñi ngi taxaw di xaar di xool naka la mbir mi di demee te ba noppi itam fas yéene jàppale Ousmane Sonko ba kenn du ko dundaloo injustice ci réew mi ndax nag loolee dafee war a jeex te war naa nekk loo xam ne benn sénégalais dootu ko nangu ndax buñ ko nangoo rek nañ yàq départ bu bees bi nga xam ne moom mooy annoncé wu te boo xam ne dañoo nar a raw Afrique gi yëpp ba ci sax àdduna wërngël saa su ne ngeen di am ay xibaar yu wér te wóor